la président de président coordination départementale des écoles de football de Kaolack. bon tournoi bi le ngeen ko gisee championnat coordination départementale des écoles de football moom lañ doon amal Nous regroupé 33 écoles de football yi nga xam ne département Nous jouons dans ko ci zone 3 zone 2 zone 1 et zone 4 euh, Nous lañ ko tassé. woon 3. def ñu joué ko euh, presque quatre à 5 mois yo xamni ni ñu ngi koy amal yalla def tay ñu yegsi ci final bi muy bés bi ngeen gis tay euh championnat coordination départementale mom lañ doon jouer ba yegsi tay ci final bi. waaw tay bla ñoo wax ci li tax ñu tànn fall Kébé dafa nekkon joyu xol joyu xol bo xamni ni tay képp ko xamni ni yaangi nekk ci école football fecc ci Sénégal joy la won ci yow. tay nga football dajalé xalé yi di football lo ñaar ñetti wër ñenti wër bo yegsee ba ci cappaandaw ga pour nga gis ku téral xalé yi da daan nekk jafé jafé waye tay je pense que tay joyu xol boobu tey euh, président Fallou Kébé euh fajj nako parce que ku gis lay li am ci ci terrain euh nga xamni tay président Fallou euh, sagal na euh, ndaw ñi sagal na xalé yi li ñuy wax avenir u réew mu nekk mu ngi ci loxay mu ngi ci ndaw ñi tey moom comprendre na mission boobu te tey moom la def li mu def mooy jël ay xale yu nekkoon ci naaj bi di eh, sonn ba yegg si tey jii ci bësu mbégte moom mu jël engagement ak eh, ci li ko yàlla dénk pour bokk ko xale yooyu nga xam ne nii tout tànk yi nga xam ne nii xamuñ dara te ku xam eh, àdduna dëgg xam ne tout tànk réew réew moo gis nu muy mel ëllëg rek xool ko ca ndawam yi niñ mel niñ niñ leen di yaree

loolu nag yëg-yëg la boo xam ne lu ma amal lu fees sama xol la parce que euh, tuddee bu nekk tuddee nañu ma ko mais bu nekkee ne ay jongante ay xale la tey ñu dem ba trois mois ñu joué ko def compétition ba tey ñu tuddee ma bis bi kon yëg-yëg bi yëg bu am solo ci man la boo xam ne daal xam naa ne rafetlu naa ko te ñoom it wane wane nañ ne lépp loo xam ne nekkoon naa ko ñoom rek tey fay nañ ma fay nañ ma ko ci bis bi quoi parce que lii lu neex ci sama la. ci xam nga ne euh, école lu ci Afrique.

wala avec ay critiques du mën a développer football Kaolack mais man ko def ni ma gisee ñu doxalee nii et puis bu ma gisé à tous les présidents école football yaa fi mëno mënoo ki moy organiser ki mooy ñu organiser te lu jafale ci sport xam naa ne gars ci xel mais lu jafale ci sport wa académie boobu mom parce que mi ngi avancer xam naa ne bientôt dinañ def lancement bi parce que am nañ site bi am nañu euh, démarré nañ ko sax demander nañ travaux yi nawet bee tax ñu aay ñu arrêté ko donc bu ñu danañ ko traité danañ ko ubbi nag parce que ko def mu ñu taxawal lool te ñoom buñ ci bokk ñu ngi ci biir euh, te loolu nag buñ koy def kooku pour que Kaolack seen doom yi bañ di génn wala ñu dem école football yi nekk région yi duñ leen mën a jël ñu ñibbisiwaat buñ toogee fi nag te boobu école boobu école étude et sport la maa ngi léegi comme ni président si wax du école football rek yem ci da ngay jàng ba pare di football. te loolu école la boo xam ne soriwul trop xam nga sama dëkku sëriñ bi foofu la nekkee te donc day permettre tamit xale bu nekk Médina wala nga dëkk biir kaw da danga am permettre ngay ji foofu. te dina am ñaari stade yoo xam ne sax c'est stade beneen bi c'est à lay nekk beneen bi du fubal ku bëgg a jàng jàng ku bëgg a fubal fubal ñaari métiers yooyu moo am ci kii bi. te xam naa ne incha allah bu nawet bi jàllee dinañ def lancement bi premier pierre bi en amoon importance mooy am site bi te trouvé nañ ko. loolu lépp c'était que pour que rendre euh, plus de efficacité football Kaolack bi que ñu mën a am accès sur le plan international.